monsieur Abdoulaye Dione ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi merci beaucoup madame euh, ci ci dalal bi ngeen ma dalal Rewmi FM c'est un plaisir. Uh-huh, ngay secrétaire général SDT 3 mm-hmm. section euh, Dantec. Mm-hmm. Euh, tey jii ñu gis ne boobu ba tey yéen a ngi artu ñu bëggoon a xam lu waral à chaque fois ñu leen di dégg ngeen di ñaxtu. waaw madame xanaa damay rafetlu invitation bi mu invité invité rek di la encore une fois di la sant di la gërëm ci invitation bi. Uh-huh. madam nag artu bi li ko waral lenn rek la gis nañ ne hôpital bi màgget na mhm. waaw dafay yàgg sa de cent huit ans def na ko mhm. te président de la république Macky Sall ñëw na fi en en deux mille waaw fekk fekk boobu defar nañ suñu maquette mhm. suñu maquette buñ bi ñu présenté ko mu ne mu ne da koy réaliser boobu ba léegi kenn dégg ko quatorze ans ñi ni waaw loolu daal moo madam rek moo tax ñu ne faaw ñu artu nguur gi mhm. waaw waaw ko lëm ñu diggoon daal parce que hôpital bi soxla na ko parce que hôpital bi màgget na waaw yi yàgg na waaw donc je pense que directeur nag la ma nga peinture na ba sonn hmm. waaw miir yi dañoo dem ba nangootuñu peinture bi sax ndax màgget bi ñu màgget waaw toll na ci stade boo xam ne daal madame fu ci état bi jógul daal ñaanuñu ko yàlla waaye lu ne mën na ci am daal parce que hôpital bi bu tawee day maanaam service yu bari day taa hmm. boo demee cardiologie day taa boo demee ma boo boo demee bloc opératoire boo demee bloc dootuñu opérer boo demee yeneen service yëpp daal mi ngi noonu daal madame ak bâtiment bu def bu bu bu def cent huit ans je hmm. pense que wàccoon naa borom daal kon tey euh, seen i jafe-jafe yëpp ñu ngi ko tënk ci Euh, lii di yàggaayu bâtiment yi wala dafa am leneen li nga xam ne yéen a ngi koy ñaxtu waaw problème yi bari na du yàggaayu bâtiment bi rek mm-hmm, ak lan waaw problème administratif yi ñu am problème au de l' avec la gestion mm-hmm. de l'hôpital mm-hmm. waaw la waaw mën nañu wax ne hôpital bi yorin bi yorin bi baaxul bi baaxul parce que tamit nag fagaru moo gën faju mënuñu fi ne mënuñu am cinq cent quarante trois cinq cent quarante trois prestataires ñoom ñëpp moom nu ñu leen mën a jëlee madame. Mhm. hôpital boobu amul xaalis boobu. Mhm. moo tax ñuy artuwat état bi nguur gi di ko ñaan prestataire yi nga xam ne dañoo am lijaasa am am diplôme. moo mhm. dimbali ñu ci ñu mën xool nu mu leen di recruter fonction publique. le reste nag ñu xool nu ñu leen di former parce que hôpital am soxna na ne. parce que am nañu ay besoin ah euh, ñu former leen selon les besoins selon les besoins de l'hôpital ci mm-hmm. entreprise Euh, rawatina euh, bu doon publique bi nga xam ne euh, tey jii dañuy faj ay nit laata ngeen di dem ci ay yëngu-yëngal xanaa di ngeen déposer seen plateforme revendicative bu dee def ngeen ko seen préavis bu dee def ngeen ko ndax boobu ba tey jot ngeen ay waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ngeen ko sekkal muy autorité yi ak yu nekk ci hôpital bi waaye it ak seen tutelle. waaw xam nga xam nga xam nga bu dee bu dee bu dee projet d'établissement bi. maanaam dañoo dañoo artu nguur gi. Hmm. ci artu lañ toll. d'accord ci phase artu moo tax keroog ñu def point de presse boobu wax ak nguur gi. Hmm. pour état bi mën réagir parce que bu ci parce que li ñuy li ñuy kaas yëpp madame li ñuy ñaxtu yëpp pour maladie rek la ah. Hmm. ah maladie ñoo ñu fi bàyyi ah maladie ñoo ñuy fay. amul dara lu leen concerné yéen ñi personnel bi personnellement. ñun li ñu concerné après mën nañ ci ñëwaat mais pour les l'instant. pour l'instant maladie ñoo ñu concerné maladie li tax ñu ne la maladie moo ñu concerné mooy ne. Mhm. hôpital bi dañ ko war a tabaxaat plateau technique bi dañ ko war a relever. Mhm. hôpital bi am li nga xam ne lépp maladie moom lañ soxla. Mhm. muy wàllu rajo yeeg wàllu mammographie beeg wàllu IRM beeg wàllu scanner bi yi nga xam ne maladie bu ñu fii. dañ ko fi fekk dootuñu génn di ko jénkaane di wuti feneen. waaw nga xam ne dañuy respecté normes sanitaires yi. Mhm. waaw dañ dañ koy respecté. tey jii hôpital bi euh, dafa bari ay bor bu ñu sukkandikoo ci ci ci ci lii di xibaar yi ñu jàpp ne li ni mel euh, baisse de recette euh, bokk na ci tey ndax loolu gënul nërmeel hôpital bi ba tax na client yi ñu ci bari dañ koy won ginnaaw. waaw moo ko gën nërmeelu madame damay dëggal li nga wax. pour ma dëggal li ngay wax hôpital bu amul plateau technique madame mënoo am xaalis. Mhm. parce que xaalis mooy liggéey xaalis. hôpital boo xam ne amoo scanner scanner bi day panne rek IRM bi kenn waxatu ko IRM moom mosuñu koo am. mammographie bi institut Curie gis na ko nga xam ne c'est mooy mooy mooy référence en matière de lutte contre le cancer moom tamit gis nga ko amul mammographie ak ak labo yi des fois yi réactif yi bari day manqué donc yooyu yëpp buy manqué xaalis du mën a dugg bu xaalis mën a dugg nag am nga charge am nga charge salaire masse salariale baa ngi fi yeneen charge yaa ngi fi bu xaalis dugg doo ko mën a réaliser te directeur moom li mu waroon def def na ko moom il avait entamé commencé woon na fi ay chantier jéem na reconstruire nag jéem na defaraat waaye dafa dem ba ci biir amatul xaalis mënatul dem chantier yëpp taxaw Mm-hmm. moo tax encore une fois on inter ñu ngi ñaanaat état bi di ñaan encore une fois mu gëstu hôpital Dantec xam ne hôpital Dantec ñi fiy ñëw ay néew di doole rek la waaw seen loxo jotul seen ginnaaw waaw ñooñu état bi moo leen war a taxaw rawatina état bi day def ay politique de gratuité gratuité donc subvention bi muy jox hôpital bi dafa war di ko yokk tey nga foog ne lan moo waral ñu néewal ko nii euh, ñàkkal ko fayda Euh, hôpital bi nga wax ne téeméeri at xanaa làkk na ko du ñaari fan du ñaari weer du ñaari at euh, tey jàppoo ne hôpital bi tey mënoon na doon benn symbole euh, ci mim réew ba ñu gën ko jox gëdd gi mu gi war ci moom dëgg la kay madame li nga wax mooy dëgg hôpital hôpital Dantec référence la royukaay la woon waaw woon mm-hmm. waaw il faut oser le dire bon mm-hmm. ñu wax ko woon mm. mais nekkatu ko parce que hôpital boo xam ne école la woon. Mhm. maanaam ña boo xoole sous région beeg même les dëkku naar yeeg ñoom ñëpp fii lañ daan ñëw. di def seen spécialité. Mhm. Mhm. waaw fii lañ daan jàng see. bu ñu jàngee ba pare dem seen dëkk ubbi fa ay clinique ak yooyu xam-xam bi fii lañ ko daan jëlee daal. waaw base xam-xam bi hôpital Aristide Le Dantec la nekkoon. donc hôpital bi mel ni comme ni nga ko waxee symbole la. waruñu ko seetaan muy nirmeelu. waaw mm-hmm. ah, bu nërmeeloo rek mën nañu wax ne ah, xam-xam mo xam-xamu santé ci Sénégal moo nërmeelu parce que hôpital bi comme niñ ñu ko waxee rek référence la woon donc je pense que état bi am ñu ngi koy ñaanaat encore une fois mu gëstu hôpital Dantec xam ne ñi fi ñëw ay ñëw di doole lañ waaw ah, il faut ñu leen di bàyyi xel waaw xam ne ñooñu bu leen état bi dimbaliwu rek du ñu mën a dem sen mm-hmm. seen loxo jotul seen ginnaaw donc ñu ngi koy ñaanaat encore une fois mu gëstu hôpital Dantec voilà. monsieur Diop bu ma la déggee ngay wax dafa mel ni féppay métti ca hôpital ba. Mm-hmm. waaw mën nañ koo wax ah madame waaw mën nañu wax ne hôpital bi féppay métti. Mm-hmm. parce que hôpital boo xam ne comme ni ma la ko waxee sànq rek ah hôpital boo xam ne. amul rajo amul scanner ah, scanner ba doxul. Mm-hmm. réactif yi amul mammographie hôpital boo xam ne chantier yëpp taxaw nañ. Ah, donc mën nañu wax ne hôpital boobu daf feebar. tey waaw. Mhm, mhm. jamono yu mbas mi ñu nekk euh, ñu bëggoon a xam taxawaayu hôpital Dantec ndax bokkoon na ci hôpitaux yi nga xam ne tey euh, bokk bokkoon nañ ci dispositif de riposte bi euh, xeex mbas mi. waaw bokkoon nañ ci xam nga ñun moom am nañ seetee. am nañ seetee mm. comme yeneen hôpitaux yi niñ ko amee. Mhm. am nañ centre seetee. Euh, am nañ ko daal bokk nañ ci xeex bi daal am nañ centre daal. waa ndax amoon ngeen matuwaay yu mat ngir mën a euh, liggéey liggéey bu yemb. waaw madame xam nga wax naa ko wax naa ko ñun boo xoolee boo xoolee li ñu jox ci wàllu ci ci wàllu xaalis ci wàllu subvention. ci Covid bi. ci Covid bi. waaw parce que dafa wuteeg seen fonctionnement. waaw dañ ñoo léser. ah. waa dañ ñoo léser parce que boo xoolee hôpital lu mel ni hôpital Dalal Jàmm. Mm-hmm. jox nañ ko deux cent cinquante millions mhm. hôpital Fann jox nañ ko deux cent vingt cinq millions mhm. hôpital Dantec ñu jox ko cinquante millions ah waaw cinquante million la ñu jox madame ci Covid bi ci santé par rapport euh, bon nga xool yeneen hôpitaux yi li ñu leen jox nga xam ne yaa nga xam ne yaa manque de considération nga xam ne hôpital dante jox ñu ko gëddam bi ko war a jox te du comme ni ma la ko école loolu moom fuñ ko teg ca doxin ba la mm. wala mm. ca ña ko yor la ah. mm. lu tax ba joxuñu ko gëdd peut-être ca ko yor la ah. waaw mën nañu wax ne ca ña ko yor parce que bu ñu amoon matuwaay mat gi ñu wara a mat defe naa ne kenn du leen kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn du leen waaw waaw kenn du leen xeet merci beaucoup jërëjëf jërëjëf kenn du leen xeet waaw seen taxawaay bi ñu war a am taxawaay bi ñu war a am moom la ñu amul rek mm-hmm. ah loolu mais xam nga ne lool du dëgg du yoon mm-hmm. tey nag ngeen commencé yëngal euh, ñu bëggoon a xam lan mooy doon seeni plan d'action waaw suñu plan d'action maanaam ay phase la phase bu njëkk bi mhm. mooy dañuy artu nguur gi waa di ko artu di ko xamal encore une fois ne xeex bi ñun gënaluñu mhm. waaw gënaluñu bu ñu sañoon ñu toog ñu régler problème hôpital bi bu ko defee kenn ñu dégg mhm. waaw euh, jàmm la ñuy woote daal parce que ñun li ñuy wax li ñuy li ñuy maanaam li ñuy li ñuy ñaxtu yëpp pour maladie la maanaam ci maladie rek lay delluwaat ñun ñu xaalis ah ñu xaalis dégg nga boobu ba léegi la xaalis. dégg nga googu euh, comme nee nga da ngeen di tàmbali ci benn. waaw waaw mujjee ci ñaar ñett mën naa am yeneen yi di ñëw. xaalis bokk ci ndax kat ku liggéey oh. ku nekk war a nekk ci condition de travail voilà mais maladie ñooy ñooy suñu priorité maanaam ñoom ñoo jiitu mhm. ci suñu xeex mhm. parce que comme ni ma la waxee sànq rek maladie ñoo ñuy fay malade bu yàlla defoon jékki-jékki kenn feebaratul fu ñu jëm madame mhm. du ñu chômer dëgg la waaw kon maladie ñoo ñu fi bàyyi donc maladie lañuy ñuy taxawu ba pare bu ñu leen taxawoo ba ñu faju ba pare nag bu ko defee ñun li nga xam ne mooy suñu àq ak yelleef ñu soog ko mais pour sant daal ñu ñun ñu ngi ci malade. waaw mm-hmm. ah, ñooñu tax a jóg ñooñu fi bàyyi waaw. Ah. kon daal ci sensibilisation ngeen di njëkkee. wala merci beaucoup sensibilisation wax ak askan bi xamal leen ne li ñuy xeex yëpp pour ñoom la. d'accord a ah, c'est dans leur intérêt pour ñoom la. bu ko defee bu ñu mënee bu ñu ñëwee ci hôpital mën a faju li ñu war a fajoo comme tout le monde. Mm-hmm. parce que ils ont am ils ont droit à la santé maanaam yoon def leen wax yoon daf leen wax ne dañoo wara a faju waaw mm-hmm. dañoo war a faju yoon moo leen comme di may seen àq ak yelleef la waaw donc loolu def naa ne sax logiquement waruñu ko sax négocier waaw d'accord Abdoulaye Dione ñu lay jaajëfal bu baax a baax waaw man euh, Rewmi FM man maa leen di jaajëfal madame di rafetlu encore une fois invité dalal bi nga ma dalal uh-huh. merci beaucoup encore di di sant téléspectateurs auditeurs yi auditeurs yi ñu doon déglu yëpp waaw di leen jaajëfal ñoom ñëpp encore une fois jërëjëf madame merci beaucoup waaw waaw waaw